mais deful bay daw moo tax mu toog di xaar. Mm-hmm. te xale yi nag dañoo dugg fas ko protéger. te def nañ ko te ñëpp gis nañ ko n'est-ce pas. ñi ñi mm-hmm. daan wax ni dem na fii bois sacré affaire yooyu bois sacré kenn du fa demee noonu ku xam Casamance bois sacré kenn du fa duggee noonu. Mm-hmm. loolu rituel moo la fay dugal nit mënul jóg ni coobare boppam day dem day dem bois sacré rituel mooy dugal nit bois sacré boo fa demoon nii si coobare bopp sax dalay alak Mm-hmm. foog nga dëkk Casamance pour nga xam ko donc ay ñu ma jàmbal jaay ñu ñuy expliquer ñoo di gëmloo ñi ñuy Sénégal loolu euh, amul donc gënu Ousmane Sonko day firnde nii rek mu ngi woon ci biir kër gi mm-hmm. te dëgër boppam di ko fas yéene ni ñii ñi nag nañu bàyyi di wax li leen neex loolu du taxul euh, euh, yàq xelu xale yi affaire yooyu pour wane Ousmane Sonko ni tapette la wala affaire yooyu Ousmane Sonko du ragal du mm-hmm. ragal Sénégal bi yëpp ragal juddu foofu Sénégal rawatina nag ba côté côté Casamance n'est-ce pas. Mhm. léegi Ousmane Sonko ñu koy diggal naan demal ci procès bi bu pour dëkk bi sedd Ousmane Sonko balaa avant empoisonnement bu ñu xamoon Ousmane Sonko bi ñu xamoon balaa ñu koy empoisonné ak Ousmane Sonko bi ñuy bu ñuy bu ñuy empoisonné ba ba rëcc ci lool bokkul bokkul ñaari Ousmane Sonko la ñu amoon. bu njëkk bi balaa empoisonnement bii deuxième Ousmane Sonko après empoisonnement beneen nit ngay amaat donc radicalisme euh, son son radicalisme la nañ ko ko nangul. Mm-hmm. instant gi lépp li nga xamante ni moom la moom la téye da koy dagg parce que beneen nit moom moo la ñu amaat beneen nit wax ma la ci coxor de wala ci yeneen mais ci ay principam da ci gën a dëgër. Mhm. da ciy gën a téye da ciy gën a jëfandu donc gars yi nañu bàyyi di gëmloo ñi non war na dem ndax dëkk bi sedd loolu yëpp ay piège la même ay avocat yu koy woo na kaay bu ñu defee nii parce que c'est c'est du xam nañu procès bi du procès dëgg n'est-ce pas donc nañu ko nañu bàyyi noonu léegi deuxième ponk boobu ñuy wax mooy affaire wu xale yooyu euh, école yooyu mhm. école yi ni ñu dàqalee école yi baax na parce que day jot xew si ña si si si si fan yi ñëpp gis nañ ko ay takk-takk yi xeex yi loolu yëpp pour protéger les enfants la mhm. te pour protéger les enfants nañu leen seen yoon new ci nañ leen bàyyi ñu dem seen kër comme ça ñu mucc ci yenn affaires yu dégâts yoo xamante ni ce qu'on appelle les dégâts collatéraux la ñu musal leen ci mhm. loolu lu baax la mhm. n'est-ce pas voilà donc nu ñu tëj école yi affaire mais aussi ça présage que ils sont en train de préparer le terrain pour une autre bataille dañuy préparer terrain pour une autre bataille te nu ñu déplacer le problème à Ziguinchor bëgg nañ fa yee beneen fitna bi nga xamante ni dañ koy lié avec la rébellion ou bien affaire séparatisme loolu la gars yi war a di bàyyi parce que affaire Ousmane Sonko amul benn rapport ak problème mu Casamance Ousmane Sonko c'est un homme politique mm-hmm. les autres la c'est autre chose donc bu ñu jël affaire yooyu di ko tegle di ko jëm a boole wala di ko jëm a féetale côté boobu nañu bàyyi loolu loolu képp ku ko def rek yaa ngi yàq liggéey yu nga xamante ni patriote yi def nañ ko parce que patriote yi wax ni leen bëgg seen dëkk liggéey ko ci anam yu gën a rafet pour ñëpp nekk ci jàmm dëkk bi nekk ci naataange ñu gérer ko loolu la loolu lañ jaay ñii ñi ñoo ñu jaay ñii ñi ay soxor ak yeneen ak yeneen voilà léegi mm-hmm. beneen aspect boobu nag mooy euh, troisième point bu Doudou bi Doudou Ka muy def noonu day indi beneen instabilité au niveau du sud mm-hmm. parce que le sud est déjà très sensible mais moom xam na ni sud foofu ay dawkat amuñu fa jigéen ñi sax ñu dàq xeex ko loolu du Ka xam na ko mm-hmm. nervi yoom yooyu jigéen ñi sax mën nañ leen lijjanti ci Casamance ku xam Casamance xam ni jigéen ñi sax ñoo dàq xeex góor yi donc bu dee indi na foofu ay nervi yaakaar ne day tiital xale yi nañ na na bàyyi na bàyyi lu muy def parce que boo yi nga xamante ni sax ay boo yu quinze ans seize ans mën nañu faj seen nervi yooyu mm-hmm. donc loolu laa bëgg mu xam ni loolu taxul booy tiit taxul booy ragal te lu muy def noonu foofu noonu day gën a yokk yàq-yàq yi rek te loolu taxul muy defar diggante euh, Ousmane Sonko ak euh, di réconcilier Ousmane Sonko avec euh, le pouvoir ou affaire yooyu day gën a tax diggante bi gën a yàqu rek donc mm-hmm. nañuy dee di rafetal affaire bi politique la du affaire u xeex wax affaire non non politique rek ñu boole nañu dem ak suñu xel ba ñu dem ak suñu xol. Mhm. yëf yi nag dafay mel ni dafa am affaire euh, mbañal yi nga xamante ni léegi dañuy fexe ba faagagal nit ki gis nga politique nit buy def politique amul xëy ne politique kese lay def kooku day jëfandu ci avantage am ci privilège mais ki nga xamante ni dem nga ba yàlla may la wërsëgal la dara nga téye dara ci sa àdduna bay def politique da ngay xam ne am nga wéruwaay. bu politique bu doxul ni nga continuer si say si say activités mais politiciens yi nga xamante ni ñoom ils sont pas des entrepreneurs ils n'ont fait la politique dans leur vie ñooñu ils sont dangereux pour le Sénégal mhm. ñoom ñooy nekk di jaxasee affaire yi di jaxase réew tout la moralité la ñu yàq aussi Sénégal politiciens yooyu la nga xamante ni musuñu liggéey seen dëkk politique rek la ñu xam nga ñu tuddee ba léegi voilà donc loolu laa bëgg wax di di rafetlu seen émission bi bu baax chaque fois ñu ngi seetaan quoi donc euh, Sénégal daal dina jàmm rek mooy am te Ousmane Sonko mooy nekk suñu candidat incha ngi lay jaajëfal bu baax baax mbokk mi kaddu am na solo eh, wax na ci lu solo ci lu ñeel bi nga xamante ni jàng beeg jàngale bi nga xamante ni euh, aj ajani nañ ko foofu ci doon Ziguinchor mu ne nag peut-être dañu leen euh, dañoo def lu nu mel ngir rek eh, aar xale yi nga xamante ni wala ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir daara yi waaye tamit defaat na ci beneen gis-gis mooy ni rek est-ce que ne defuñu ko ngir gën a maîtriser terrain yi en tout cas lu mu ci mënti doon foofu lay daal lu jëm ci wàllum njàng mi moom daat nañu koy ajandi eh, ba le 25 mai bi la ñu jëm incha allah loolee dafay tombeek juste eh, li nga xamante ni mooy procès Adji Sarr Ousmane Sonko bi daal di passé voilà mu mel am na beneen bokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi nuyu naa la bu baax a baax tuut beeg fay wootee. maam Cheikh la moo dellu si waat. maam Cheikh d' accord sa réseau bi tey dafay déconné de lan moo <laughs> ah da nga nekk si àll bi. waaw tey moom réseau bi daa xaw a waaw gis nga de maa ngi ci région yi wallaay. d' accord maam Cheikh ban jàngat nga am. ci <laughs> ponk nga xamante ni wax naa la ko sànq ban jàngat nga ci am. waaw di rafetlu émission bi bu baax di wax ne mm-hmm. maa ngi leen di siyaar lu bari. Mm-hmm. di leen wax ne namu naa leen maa leen raw ak ñoom <laughs> paasa. ñëpp la raw bu baax a baax. <laughs> Mm-hmm. <laughs> voilà di di ñëw rek ci li duudukat nekk di def. premier point. parce que loolu jàpp na jëfukum matadi la jël ay nervi di leen yebal Casamance loolu jëfukum matadi la loolu jëfum mala la ñoom bu fekkee ne dañoo am lu leen miti ci Ousmane Sonko. ku mën na def nañu génn def lu mel ni son ko def wala ñu génn wane seen bopp ñoom du ñoom ñëpp ñoo ngi làqatu ci seen taatu kër yi mhm. jël ay doomu jàmbur soppi leen nervi yi yëpp leen ci ab biis ci leen dugal Casamance xamuñu ne Casamance googu man Casamance daf na fa quatre ans avant may génn Casamance daf naa fa quatre jigéen ñi ñoo man góor ñi fop du ñu sax benn mhm. li góor ñi di imaginer di ko xalaat jigéen ñi du ñu ko imaginer nag mën nañ leen a ñuus ñu nervi yooyu jigéen ñi mën nañ leen ñuus ba ñu mën ñu paqueté leen dugalaa leen ci seen leen Sénégal <laughs> delloo ji leen Dakar barke Serigne Saliou Mbacke jigéen ñi leen man fap te loolu du du affaire de comme sawaa ji génn sànq li mu wax mhm. politique du affaire de non mais instant bii nii dañu gis ne ñoom seen sëdditu bopp yi yëpp a jóg maanaam Ousmane Sonko daal ku koy tudd di tudd leneen loolu la ñuy bañ a dégg mais ñoom pourquoi pas munu mënuñoo nangu dogalub yàlla ci Ousmane Sonko pourquoi pas ñoom nee nañ nañ yàlla gëm nañ yonent bi gëm nañ bés penc gëm gëm nañ ne ku def lu baax suñ borom fay la ko ku def lu bon mu fay la ko mm-hmm. pourquoi pas mënuñoo nangu ne yàlla moo wane boppam ci jëmmi Ousmane Sonko pourquoi pas mënuñu ko accepter pourquoi pas lan la leen Ousmane Sonko yàqal wala fen yi ñu noon fen di fen askan wi di dajale seeni xaalis di ko lekk ci ni mu jaadoowul loolu la Ousmane Sonko ñëw leeral ko ñu ne du fi du ko fi amee mais pour kan pour lan ci kaw lan lañ koy teg Ousmane Sonko dogalu yàlla la dogalu yàlla la nañu gëm yàlla ci Ousmane Sonko te xam ne li mu war a am dina ko am tew bàyyi mille taw 2024 incha allah mooy mooy nekk président Sénégal loolu yàlla bind na ko ci azal muy soog a ñëw looloo tax suñu borom wëlbati xelu jaam ñeeg seen xol yëpp. mu mm-hmm. dëppoo ci Ousmane Sonko ñëpp àndee maase doon benn ci benn kàddu gu ñuy wax ne Ousmane Sonko dañ koy jaay doole dañ ko bëgg a xañ candidature am Sénégalais yi nag ñëpp maase yeewu xam nga ne ab fukki nit rek yoo xamante ne nii tey dañoo am xel mënoo leen a déwéeloo Mm-hmm. mënoo leen a dévier loo Ousmane Sonko li ko topp ci Sénégal am na ñoo xam ne topp nañ ko soxte ñemu ñëw fës wallahi ba ci biir état wu Sénégal ba ci waa Benno Bokk Yaakaar googu am na fa ñoo xamante ne nii Ousmane Sonko la ñuy nooyee bu dul Ousmane Sonko seen cin du saf barke Serigne Saliou Mbacké mm-hmm. nañu xam ne mbir du ci Ousmane Sonko du ci woy guró du ci woy juróomu góor du ci woy juróomu jigéen mm-hmm. li nga xamante ni moom la suñu borom dogal dafa jógee ko ci suñu borom direct ñëw ci Ousmane Sonko sans intermédiaire loolu ñoom nañ ko xam mm-hmm. te dañ ko war a xam buñ ko xamul dañ koy nangu dañ koy nangu noppalu buñ ko nangulee dañuy sonn ñoom ñëpp danañ fetal ba seeni bal jeex seeni lacrymogène jeex te du tee Ousmane Sonko di Ousmane Sonko ah incha allah mooy nak suñu futur président 2024 bu soobee yàlla sama borom Mm-hmm. comprendre sa beneen beneen beneen beneen point bi Ousmane sonk génn bi mu génn noonu c'est très important pour pour pour pour population bi pour ñëpp waaw ndax dañoo yàkkamte woon Ousmane Sonko daw ñoom dañoo jàppoon ne Ousmane Sonko dawkat la kooku du daw bu doon daw li jot jaar ci kawam depuis deux mille vingt et un jusqu'à aujourd'hui konoon gëm naa ne du toog ba yegsi ci cappaandaw gi di di wane ginnaaw kooku du doone ginnaaw ñoom xamuñu Ousmane Sonko xamuñu joolaa Mm-hmm. ñooñu du ñu wane ginnaaw seen numéro ginnaaw yow boo doo du ñu ko gis ñoom du état Sénégal mooy gis ne ñoom dañoo daw dañuy xeex ba ba ñuy deewee lii ñuy def taxul Sénégal jëm kanam nañu delloo si waat seen xel président Macky Sall na xam ne lii mu nekk nii maanaam euh, sàgganu nii laa defoon day yokk sàgganu li ci mm-hmm. ginnaawam ñaaw na muy jéem a topp di insister di insister day gën a ñaaw rek mm-hmm. lu ñaaw moom boo ko bàyyi wutee day gën a ñaaw rek na yàlla Sénégal mën a jublu nii Sénégal Macky Sall mooy ki ko mën a dalal mu dal ndax moo yor lépp lii ñuy toppee Ousmane Sonko du dara dëgg amu ci mbir mi dossier bi ñu koy toppee dossier bi àtte na boppam depuis deux mille vingt et un comprendre nga kon bu ñëwee ba léegi nii am laami ni ko dàmbu di waxee bëgg a toppaat ci ginnaaw bëgg koo tëj te mu war a nekk suñu président deux mille vingt et un deux mille vingt quatre ñun loolu duñu ko nangu amul benn population boo xamante ne nii dañuy dem réserver seeni président pour deux mille vingt quatre ba pare benn golo jógee ko fee ñëw bëgg a jël almet kos teg ci ah, pour la lan ñoom yi ñuy jël di ko partagé mhm. nañu dem génnee ji ko loolu moo ëpp important à part loolu leneen lu ñu fi def dañuy yokkal seen bopp rek ndax kenn ku nekk bés dina ñëw dinañu la teg laaj la li nga géré woon noo ko géré mhm. ci fan nga ko dugal ak fan nga ko def ak nan ak nan nga yor réew jaajëf maam am na xaaral bay am mhm. waaw yàlla xaaral xeex may ma ma damel. yàlla pour mu waxambaane la woo xamante ni jam ñaaja la taxaw yoru yetam di xaar Dakar ngay xëy di def loolu la timi say jot mu yoddi la ba nga ñëw jam ñaaja mu jàpp yatam wulli la ba nga. Mhm. tey tey tey lala koy wan. asalaamaaleykum wa rahmatulah. jaajëf maam Cheikh ñu ngi lay bu baax a baax kàddu yi am na solo voilà mi ngi noonu woote leen ci numéro yooyu 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93. waa ci xibaar yi nga xamante ni aussi am nañ ko muy Adja mi nga xamante ni moo ñàkkoon bakkanam ci diwaanu Ngor ni ki tey jii la ñu koy daal di euh, jébbal boromam foofu la ca euh, armée ya nekk ci diwaanu ngoox ñu koy ñaanal. yal na ko yàlla yërëm te xaare ko na ponk yi ñuy waxtaanee tey bokk na ci sorti Ousmane Sonko bi ginnaaw ab diir bi nga xamante ni toog na ko génnul ay rumeur juddu ne leaderu Pastef bi lee dafa daw ci diwaan rëpp euh, Guinée Bissau ñu gis ay euh, journaliste di xam ne lu nu mel mu mel ni daal ni ki démb moom daal nay démentir lu nu mel ndax def na sorti bi nga xamante ni euh, dugg na ci mbeddi Ziguinchor yi di saafonte ak ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy militant wam voilà mu mel ni daal génn na di wane ni dawul daa daayul mu ngi foofu lee ci diwaanu Ziguinchor Ziguinchor nekk ci euh, këram gis nañu tamit ni ki démb génneem bi euh, discours bokk ci maanaam àdduwut ci li nga xamante ni moom actualité réew mi. ñu wax ci leneen li nga xamante ni ba tey ci diwaanu Ziguinchor la mu mel ni jàng mi daal daat nañu koy ajani ba le 25 mai bi ñu dëtmal mu mel ni procès Adji Sarr bi le la njàng mi nag daat nañu koy ajani ni kii le 25 mai bi ñu jëm la ñuy lu jëm ci cours yi yenn ci centre de formation yi ak li nga xamante ni mooy établissement yi njàng mi dañu koy daal di dakkal foofu ba le 25 mai ñenn ñi jàpp nii waaw ngir sàmm comme ni ko ku mbokk mi duggoon sànq ni mu ko daal di waxee ngir sàmm kaaraange ndaw ñi la ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci daara yi ñenn ñi jàpp ni daal dañu ko def ngir rek mën a maîtriser li nga xamante ni mooy terrain bi en tout cas lu mu ci mën ci doon mbir maa ngi doon ci diwaanu Ziguinchor cours yi daat nañu koy euh, jot na TV ñu joxe benn xibaar ne oto boo xamante ni dafa yëpp ay nervi wutali fi nga xamante ni mooy diwaanu Ziguinchor ñoom nag ñu ngi daal di xam le ni yooyu lay euh, nervi kii di Doudou moo ko daal di yónnee foofu la ci diwaanu Ziguinchor mu nekk mbir mi nga xamante ni jamono ji euh, suñu naataangoo jot na TV TV daat nañu koy xamle di xamle ni lu mel nag dañu ko daal di def ngir rek mën a jàpp ñenn ci manifestants yi jébbal leen ñi nga xamante ni ñooy euh, takk der yi ñu ne dañuy daal rek infiltrer ci ñi nga xamante ni ñooy manifestants yi su ko defee jàpp leen jébbal leen ñi nga xamante ni ñooy takk der yi mu ngi noonu xibaar baa ngi noonu lu sumay ay kàddu nag kàddu yi jot na waa jot na TV la ñun dañuy def rek lu dul jàllale